tey dañu ñëw fii eh, ci eh, cadre liggéey boo xam ne dafa jëm ci wàllu wërgu yaram te bu ñuy wax wërgu yaram ci jamono ji ñu toll xam nañ ni wàllu coronavirus bi effectivement am na lu bari loo xamante ni gàllankoor na ko ci wàllu santé bi loolu moom moo tax Human Appeal International IHCO jël kemtalaay kàttanam ci ay matériels yoo xam ne daf ko jënd ci wàllu prévention ak ci wàllu faju ñëw jébbal ko structure bi nga xamante ne structure état la pour euh, jàppale leen ci wàllu faj mi faju njaboot gi. waaw ah, comme activité yi Human Appeal International UACO ñett ñaari yoon ñaari yëf lay jëfe euh, jaww ji wala boog environnement bi mën na tax euh, personnel Human Appeal yi def ay études yónnee ko direction général bu ko defee ñoom ñu financé ko. comme liñ liñ ci man alors demande tey bii nag moom effectivement euh, hôpital bi ci boppam moo ñu def demande euh, ñun ci demande boobu ñuy jox ñu jël li nga xamante ni mën nañ ko ci couvrir ñu couvrir ko moo tax ñu ñëw fii tey pour joxe ko. ak mbégte la ñu recevoir tey jii ONG Human Apple International ñëw fii ci hôpital pour enfants de Diamniadio pour jàppale ñu vraiment ci faj gi ñuy faj xale yi fii nii si hôpital bi. te li ñu indil tey jii moom vraiment ñu ngi koy apprécier bu baax a baax a baax parce que ay mbir la yoo xamante ni vraiment dañ koy soxla ci ci faj yi nga xamante ni moom la ñuy faj xale yi fii nii donc bu ma bu su ma nekkee di lim xëy na dinaa juum ci yëf mais yaa bu beaucoup de matériel yoo xamante ni soxla nañ ko vraiment ci ci prise en charge xale yi fii nii au niveau de l'hôpital et ci loolu aussi damay profité waale di waxaale aussi ci don bi aussi jox nañ ñu ay obus d'oxygène yoo xamante ni soxla nañ ko vraiment fii ni à l'hôpital parce que hôpital pour enfants de Diamniadio aussi c'est un CTE c'est un centre de prise en charge des des des des des des épidémies donc euh, si centre de prise en charge boobu xam nañ ñëpp ni période bi nii oxygène bi dafa am solo torop ci prise en charge bi ci CTE et bi ñuy ñëw itam indaal leen ay obus d'oxygène yoo xamante ni moom ci maladie hospitalisée vraiment soxla nañ ko te Euh, loo mbir la boo xamante ni ñu ngi koy apprécier vraiment di di di remercier encore une fois ONG